le 1er janvier dafa nekk bés boo ni ne nii coow li la tee ko foofu rek ci kaw mo won gars bay balle mbou le 1er janvier li day ñibi waat parcelle wala day dem Pikine bay balle yaakaar naa ne diggante Modou boña digol taxaw boy coow li li la bay balle mbou coow li li la ñewal jege ma Baye Balla Mbuub coow li coow li lii la jege ma booy jegeel cadre ko ñu ñaar. waaw. roi bi ndax day dellu fa mu nekkoon wala Pikine da koy jëlee ci kaw parcelle loolu le premier janvier lay leer ak Gaston production. Baye Balla Mboup lii ma téye nii. Mhm. mooy couronne titre roi des arènes. Mhm. ku ne moom nga bëgg. Modou Lo ci Eumeu Sène la ko jëlee woon. Mhm. bi ko Modou Lo jëlee ci Eumeu Sène tegalaat ko waa Pikine. jëlat ko ci Ama balde ñu ne mudlu da ngay dem yarax da ngay dem way fo jëm mu ne dama koy tegalaat waa Pikine ñu ne koo koy tegal moy Mbaye xërmi ci ñom bo ñang ni mëna dé wallahi surtout Cheikh Yérim du mbaan bi hey bo fa lambaay bala ko du maana mbaay waye est-ce que xam nga ni mudlu mi ko tegal Boy Niang bu ko jëlaté ci wa wa Pikine la ilaha su boba day nekk le meilleur de sa génération parce que mom moko moy ko fi jël deux fois ci kaw combat Baye Balla Mbuub lii ma lay wax ni dama bëgg nga bàyyi ko xel bu baax. Mhm. lii Modou bu mu koy jël ci Eumeu Sène mu ko jële woon ci sañ-sañ. Mhm. koy jël ci Ama mu ngi ko jëlee woon ci sañ-sañ. Mhm. jël ma nii. ci sañ-sañ lu ko jëlaatee ci Ama Balde. bu fekkoon ne Modou Lo daa am maytu muy du ko tegalaat waa Pikine. déedéet Modou Lo lan la gis ci lii ne waa mu mënuñ koo jël ba tax chaque jour mu leen koy tegal. en tout cas ragalul fi mu jëm de. laa ilaha illallah. loolu daal moom ma ci xaw a jaaxal. xam naa ne ku ñeme fi mu jëm la. hey Boy Niang numéro 2. ku xam ku miin roi des arènes la waaye Boy Niang le fils de Dogon ku nar am sens ci roi bi la. ndax lan. parce que bëri ba mu yor vigilance ba mu yor ak li ma ko gis mu liggéey ci combat bi pour man bëri bu doy waar la bu nga indil Modou Xarañ. Baye Balla Mbuub dinaa la wax leen nga dégg ko. Mhm. te fii laa la koy waxee Sénégal gépp dégg ko. Mhm. li di couronne titre roi des arènes bii fii ci 2STV yi ñu di ko fi tay te Modou ak Boy Niang war ko xëccee le 1er janvier. Baye Balla mu xam nga ni couronne roi des arènes bii. Boy Niang waru ci déglu kenn ci conseil mm-hmm. bu ko bëggé jël. sañ-sañ la wara tek yaa ko wax sañ-sañ la war a teg. c'est le premier boo du xarañ boo ko bëggee daam faaw nga teg sañ-sañ la. faaw nga jël say responsabilité ngir mën koo daan combat bi du combat consigne keroog maa ngi koy wax ma ne combat bi du combat staff combat la boo xamante ni booy ñaa dafa ko war a jël téye ko à main. ban booy ñaa moo war a bëri Modou Lo Boy Niang ban booy Niang moo war a bëri ak Modou Lo. mais Boy Niang bu ban booy Niang moo war a jàkkaarloog le roi des arènes. mais Boy Niang bu ban Boy Niang moo war a xëccoo tiit roi des arènes. mais Boy Niang bu indi doole. fii jege ma ma wax la leen nga dégg ko tey. waxal fa damay wax de l'expert. dégg lu baax li ma lay wax. Mhm. kii. Mhm. ku ko bëgg a jël doo déglu borom xalaat yu bari. Mhm. da ngay indi sa xalaatu bopp yamale dund ak dee. yamale am ak ñak ndax Modou am na fu muy tollu ci lamb day yamale am ak ñak day fu muy tollu ci lamb day gëm ne lepp lu muy mën ci am entraînement ko indi bay ballam bu li galaj ko may de ta gëm na ne ñaari mbeur yi gëna a ci aduna bu lamb soso ba legi ñaari mbeur yi gëna a am état de forme ñuy xëccu ci droit de arènes tay mm-hmm. lima ci jaaxal moy Boy Niang dama ko fekk kérok ci open press bi mu wañi poids te Modou Lo ñu ñëwoon ci moom ñi ñëwoon bëri seeg moom ñëpp yor benn poids bi. daf leen daan daf leen yóbbu mais booy ñaar dama ko gis mu wàññi poids. kon wàññi ba moo ma jaaxal. Baye xam nga ne doon wax fii ci làmb lu bàyyi xel la. Mm-hmm. muy Modou Lo bi mu booy toogee fii dañu ñëwoon booy ñaar dafa jël poids. Mm-hmm. mu ñëw coppande presse ba wàññi poids ba tolloog li gars yi soxla. Mm-hmm. kon lam soxla woon ca garab dindi na ko ci yaramam. waaye Baye Balla Mbuub le premier janvier buñ ñëwee vingt une heure euh, buñ ñëwee dix huit heures quarante cinq jot na jàpp dix neuf heures ñu ne Modou loo laal na la mu war a laal boo ñàpp ren na. Mhm. arbitre war na làmb ji jël lii teg ko seen diggante. waaye génn seen diggante nga gis lu doy. ay bay ban la loolu. waaye ba waay waay waay waay waay Modou ay moom li muy dugg si ci lamb xarañ bi da ko dab da ko dab asbekaay sunu doyen moo daan wax ne guddul ni ñoom tol ni ñoom oh, oh. waaye moo leen jaaxal bay balla mbuub ci sañ-sañ bi bay balla mbuub ci bëri bi ak ay ndaanaan ci fit wi ay moom ci njàmbaar wi mm. ci xeex bi waaye Modou Xarañ yaa ngi bëri xale boo le fils de déggoon yaa ngi bëri xale boo day léwtoo di dox latéral xoolul sa pied bi nga teg de eh, pied ba ci ginnaaw lay du duggum ci combat bi eh. ndax yaa ngi may yëngal waaye duggum ci combat bi mm. waaye lii ma lay dee dama bëgg nga bu baax mm-hmm. lii tuuti na lool. Mhm. waaye ay coowam wër na àdduna. Mhm. roi des arènes bii démb moom laa gis Modou nekk ci open presse. Mhm. daal di ne nii waa parcelle. ñu ne ko lan la mu ne couronne bii fii lay des. ndax Boy Niang ko bëgg a jël si. ndax boo Niang da ko bëgg a nangu ci Modou ndax boo Niang dafa bëgg wax ne waa Pikine li nga xam ne tey jii moom la ëmb seen tële li nga xam ne moom la Ama Baldé tële woon. moom laa leen indil loolu lan moo koy may. mooy sañ-sañ. jom njàmbaar bëgg waaye loolu lépp da cee fekk Modou bay Balla Mbuub mm. lépp luy may titre roi des arènes gis nañ ne Modou Lo da cee rey boppam mm-hmm. waaye bay Balla mm-hmm. nañu jox Sénégal yëpp rendez-vous mm-hmm. le premier yàggatul le premier janvier loolu la ñuy wax ak Gaston Production ndeysaan mbokk yi bés boobu date historique la bés boobu yàlla nañ ko fekkee ci jàmm Gaston Production yàgg nañu indi bés yu ma saa boo ne Gaston Production sa xel dem ci Gaston xaali meng la Donkin de l'arène sunu baay bi ñu ngi koy ñaanal mu wér mu gudd fan ci barkeen ci yàlla Muhammad waaye nag drapeau bi drapeau le président de la république. kon Baye Balla la. kon lañuy tagoto rek yaakaar na suñu ministre bu baax bi la Diop. ministre des sports wa nit ku baax. ken du yow. la Diop quelqu'un qui est très social ñu ngi lay xaar ci bëss bi ndax yaakaar naa ne. Mm-hmm. raaya bi bok nga ci ñuko wëra tey mm-hmm. ndax ya fi nekkal sport Sénégal. Mm-hmm. té yaakaar nañ ne Coupe bi la Diop jëm. yalla ko suñu borom defal ndam. en tout cas ñu ngi xaar lepp lo xamanteni Matar Ba defal nako ci sport bi tay ji la Diop jëlé ko fofu yobbu ko fu gëna kawé lool lañ koy ñaanal parce que mi ngi door a ñëw sois le bienvenu yow ñu ngi lay wax welcome di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban kon ba premier janvier. rajo jaajëf one love bro.